suñu parti PSS jëngu tabax ci euh, xalif général bu Ndiassane bi fi wàññeeku mhm. ñu koy def ci turu président Boubacar kamara di jaale bépp umma islamique ak bépp euh, sénégalais et aussi di dellu également di massaw ñi nga xam ni ñoo am euh, ñoo deelee ci manifestation yi ñi nga xam ne ñoo ci wàññeeku mhm. ak ñi ci am ay gaañu gaañu vraiment mu nekk une situation regrettable mhm. alors lii lépp li ko waral rek mooy coowu troisième mandat moo nekk derrière tout ça. parce que pense que su fekkoon le président de la république nga xam ni moom seul et l'unique responsable actuellement kon lii lépp du am mbir mi c'est vrai c'est une euh, affaire entre deux citoyens mais dafa am ay relents politiques parce que aussi bu fekkoon l'État n'est-ce pas dugalu ci woon loxoom kon tey coow lépp du du du du du du am boo leen rappelé li lépp le président Boubacar Camara waxoon na ko le 12 février 2021 bindoon na benn lettre ouverte au président de la République. Mm-hmm. ni ko wax ko yépp artu ni ko n'ouvrez pas. quelque jours lañ ci teg événement mars am ba mu am les 14 morts malgré loolu ñëpp artu na kilifa yi wax ñu deltu ñu yaakaar ne le président dina deltu ginnaaw mais ba léegi. loolu moo wëy donc concentré ci effort ci sécurité ah ci ci ci ci affaire u euh, armement et tout ça bu fekkoon amoon na n'est-ce pas génnoon na euh, comment ça ci ci affaire politique kon du demee ni parce que comme le dit le président Boubacar Camara ci ouvrage am mu ni la politique doit s'arrêter à la porte du palais de justice et donc dem nañ ba sénégalais yi wóolootuñ suñu suñu justice. Mhm. loolu président Bokar mi ngi ko développé même ci livre bi di wax ni day prôner pour que les sénégalais ñu mën a am une perception plus positive nest pa pas par rapport à la justice. Mhm. ñu fexe ba nga xam ni la justice day am indépendance. loolu wax na ko développé dans le chapitre livre bi am na fu wax ni dafa war a laaj une large concertation des parties prenantes. Mm. ñu waxtaan pour que ñu def une loi d'orientation sur l'indépendance de la justice. Mm-hmm. loolu tant que amul toujours situation yu mel nii lañu am bu demee ba nga xam ni un citoyen ñu convoqué la pour nga ñëw euh, devant la justice. nga xam ni boo demee dina la néewal doole nga mm. ni doo dem loolu li ko indi mooy lii. Mm-hmm. et donc moi je pense que le président de la République dañ koy invité. mu mettre fin à sa parce que mm. quand a à chaque fois ñuy ci rey ay innocent di ci yàq ay business jàmbur gis ngeen ni ñuy yàqee ay yenn boutique et cetera yooyu ça doit cesser et donc moi je pense que comme ni ko le président Boubacar waxe woon Macky Sall waxoon tey du def troisième mandat amaan li lépp loolu wax nañ ko explique nañ ko donc ci euh, la dernière fois ci manifestation F24 donc au passage ñu ngi nuyu Euh, donc la coordination de FNREC ñi nga xam ne ñu def un travail extraordinaire ci li nga xam ni mooy ay bataille de principe ñun ci loolu la